Monsieur le ministre, permettez-moi de saluer vos collaborateurs. mon frère, le fils à mon papa Yag, le commissaire Yag, je l'appelle, euh, mon frère Tchendela, et le directeur général de l'ASP, M. Biram Faye. Euh, monsieur le ministre, ma ñëw rek waxtaan ci euh, jamono fi jamono ma alerté la di la Eh, fële ci université Alioune Diop de Bambey kidnappé na ñaari policier sa njaboot la te loolu li ko waral mooy ñaxtu bu am foofee eh, monsieur le ministre moment bi may wax ak yow nii ay xale yu bokk ci UVS université virtuelle du Sénégal ñi ngi obs abstenir ci lekk ak naan maanaam grève de la faim fële ca waaye ba jënd nañ ay buum takk ci seen baat moment bi may wax ak yow nee nañ boo moytul lu ñu fekkee journée bi ci ay doléance xam naa comme yaa gën a direct ak président de la république ma wax la ko mu wax ko ministre de l'enseignement supérieur mu waxtaan ak ñoom lan moo xew euh, monsieur le ministre damay laaj waa ji sax dafa ni looy laaj man damay laaj euh, monsieur le ministre lan mo waral sa ministre de la justice ba ay euh, sous-préfet ak ay préfet di xulo ak ñi nga euh, magistrat yi verdict entre opposition bi déposé ak euh, sous-préfet lool monsieur le ministre amna lo xamantene

tëj la fa ci condition inhumaine déshumaine yoo xamante ni mosoo ko dund nga faatu ñu ni mort naturelle la ça est dans le rapport mort naturelle yomb na boo ko defoon bitim réew ci commencement ba ci fee ñëppay tëb te comme da nga mën a reetaan nitu jàmm nga waxal ak sa njaboot artule monsieur le ministre par ma voix par ma voix l'association Tringa dont je fais partie la présidente Awa Thiam une digne fils de fille de Khombal vous remercie comme man sono wi Tringa dañu lay remercier walé. ndax euh, barki bi ñuy kër gogou, gogou, xalé yoy li xew Europe ñu délocaliser nga ci nga ma association monsieur le ministre ma la fi ci rapport bi ko prise en considération du commissariat de Guinaw Rail Nord Té daf ñor rapport équipé gi jàppale gi ndax fi ñu nekk wax naa la ko ne mooy dëkk boo xamante ne dafa xata xata xata xat yaatuwul ñëpp tëj ñu kon monsieur le ministre jëlal considération loolu te nga réaliser ko ndaxte boo leen jàppalee mooy jàppale nga ñun ñëpp monsieur le ministre si loolu laay jaar wax la ne la ñun ci insécurité boobu tey ginnaaw raay noor su fekkoonte ne tey lakk dafa am kenn du ko fay am nañ kaa nag bi président de Macky Sall jël na ci douze hectares xaw ma lu fay waaj def ben marché nga fa mais sapeur pompier lañ fa bëgg Camp tiara parce que amon nako ñun bi ñuy nekk xale donc dañu bëgg na sapeur pompier ci wat fa ma jaara ci nuyu walé sax nag colonel sapeur pompier bi ndax waxon nako bi passé nit ko am njëriñ la ci askanam euh monsieur le ministre la rémunération des délégués de quartier délégué de quartier ci jamono ba muy bax man sama papa délégué de quartier la woon dégg ngeen 45 ans de délégué de quartier premier délégué de quartier décisionnaire de de de de Guinaw Rail mais du département de Pikine tay ba délégué de quartier xam di fay ay nga batale maire utiliser monsieur le président Michel le ministre souffrez en silence Michel le ministre nga baal ñu rek nga jàpp ci defaral leen te recruter te recruter lu am solo ndax ASP yi la police wa rahmatullah souffrez en silence